demi-finale de cent vingt kilos Mamadou Moustapha Sall ak Libidor ndaysaan Libidor moo ngemboo ngemb lu weex li ceinture rouge fils de Batlen Siki Mamadou Moustapha Sall moo ngemboo ngemb lu Lagos ceinture ñu ngi ci compétition bi plus de cent vingt kilos ñoom ñaar a ngi noonu daw na jëli ko Libidor jël ko fàqatante nañ da koo bëgg jëli dóor ko tànk Mamadou Moustapha Sall Libidor fàqat na ko da koy jël wala déet génnaat nañ laa ilaaha illallah dinañ bëre ndax final daan dem final la demi final bi du yomb ndaysaan du yomb ñoom ñaar ndaysaan Libidor jël na tànk mu ngi koy mbot da daan da daan trois appuis la da daan moytul Mamadou Moustapha Sall moytul da koy suruxal wër na ko ndomba da daan daan na ko Libidor dem na final Libidor daan na ko Libidor daan na Libidor daan na. Libidor daa mel ni xol sedd na. waaw bàyyi jëli waaw xol seddagul na daal. seddagul na bala moo sedd ma jël fay daal. xel kon xel bu daanaka nii dalal nii waa dalagul. Ah. parce bala moo dal dëgg nu jël li nu sas daal daanu nu sas. waaw na ma booy confirmer rek ma booy confirmer ma eggale. Ah. billaay walaay caaxaan daanu ma de. waaw baax na. li fi door a ngi noonu.